dikkati na lu président Macky Sall deseel sénégalais yi day la turbine xëy sampub laaj xanaa jekkali góorgóor lu faye laaxu moom yéen kaayib des média bi ne ma njëgub carburant yokku na njëgub courant daal dinay yokku maanaam cib gàttal turbine yéen kaay na njëgub essence ak gasoil moom yokku na xam ngeen ko kilowatt bu courant bi ñi daal di ci amal ab yokkute turbine naan bu mu neex donte métti na ci sénégalais yi waaye bu fa mu neex yéen kaayib des bi ne ma président Macky Sall mi beneen yokkute te fa la jëm ak ñun muy dund gi moom président Macky Sall nag wàññi woon na dund gi gars yi di sar mu yokk courant ak essence coppet bii teg ci bee la ñu wàññi woon fii yokku nañ ko fee turbine ne waaye du ca yem ma dund gi sax du yàgg dañ koy yokk moom it dëkk boo xam ni Sénégal gars yi ndóol ba mardey taali saa si tembe am lu ñu lekk sax daanaka urgence la réew mi taaba taaba moo fi am wax ko ñàkk koo waxa fi am askan wi sonn nan lool dëkk boobee nga ne danga fay yokk carburant ak courant teg ko nag ci ndoddug sénégalais yoo xam ni daanaka coono la ñuy waaye tam dëgg-dëgg yokku leen guuta la ndax réew moo xam ne ma ne la dañoo ndóol nga yokkal leen courant essence yokkub ndóol la ndax nag boo yokkee courant yokkub essence même bu dee lu amul oto dana ko yéeg ndax góorgóorlu ci oto lay xëyee ca lay wàccee te njëgub transport mënoo wax ba du yokku njëgub mburu bàjjo bi dina yokku njëgub suukar dina yokku njëgub dawlin dina yokku daanaka daal lépp faaw mu yokk ndax lépp loo xam ne dañ koy séddale dem ak dikk moo koy def di woto te bu essence yokkoo yooyu yokku mënta ñàkk yéeni kaay bi naan man bàjjo bi ñetti doomu ci réew mi mi muy ndékki añ reer léegi nag nijaay sax faf dina leen të xiif nag war a ni faax daagu ci réew mi ba am fi bàjjen moom ku cay victime xanaa góor góorgóorlu ife mi toog ca ruqam naan nguuru Sénégal yokkal njëg yi moom nguur gi di yokk askan wi di gën di ndool soo moytul nag xiif faat leen fa yallaahu ay consommateur lan yoo xam ne dañ ñoo bàyyee suñu bopp tur bi nay wax de ci diirub ñetti at nag ñu yokk fi ñaari yoon courant moo tax nag yéen kaayub dee média bi xëyee ñun akub laaj moom président Macky Sall fu mu nu jagat jagatee jëmee xanaa doggali rek fa ne ña ngay doggaleeku ca dalal jàmm juróom-ñaar fukk ak juróom benn téeméer ci bakkan ñoo fa daal di rot lu ko waral xanaa ay weer ngi nii yéen kaay bi ne scanner ba daal di paan lu toll ci juróomi téeméer ñoo xam ne dañoo am woppu cancer nag nekk ci jaaxle ban jaaxle dëgg-dëgg la toog yéen kaay bi mel ni kuy laaj ci bañ Sénégal la ñu nekk Sénégal boo xam ne nag ab scanner dafa paan ña am woppu cancer di faatu ña ca des di fa fajoo ca l'hôpital ba tiit ba mar day taali lobs ne ma moo ne day directeur ba ma ngay joxe ay assurance waaye ingénieur informatique biomédical ba ma ngay artu de ma ne la buñ ca waxul làmbaay ñaaw fa yallaahu loolooy dëgg vox populi ne ma waxtu woowu am na garab goo xam ni ña ngi koy quarantaine di tere ko jëfandikoo biofaar lay wuyoo yéene kaay bi ne ma biofaar vitamine C mille bii dañoo gis dina nag dafay soppi couleur soppi doxalin ña ko amee stock ña leen di laaj ñu yóbbu ko ci pharmacie nationale d'approvisionnement askan wa koy jëfandikoo it ñu ne leen dakkal leen ko baaxut la baaxul la solo yéene kaay ma mooy accident yi nga xam ne mi ngi mel ni tulleeg maa la ci réewum Sénégal ñeen fukk ak benneelu victime daal dina ca lay am source aane ma victime boobee dañ ko xamul woon ay mbokkam mënuñ koo identifier mu am histoire bu triste waay Le Soleil yéen a kaay ne ma moo taxit gouvernement gu Sénégal fas na yéene nag la nga xam ni moom moo di mesure yi ñu appliqué ko daar daar Le Quotidien Le Quotidien ne ma tey kay la ñuy door application bi juróom-ñaar ci mesure yoo xam ne gouvernement gu Sénégal jëloon na leen tey jii lañ leen di appliqué ci réew mi tey jii nii normalement war nañu génne décret boo xam ne nii day tere woto yi ñu daw diggante 23 heures ak 5 heures waaye tam woto yi nga xam ne dañu yor marchandise waxtu wan leen tëral seenu ndawin fii ci ndakaaru tey jii it war nañu door woto boo xam ne am nga fukki at di transport dootoo dawati woto boo xam ne am nga fukki at ak juróom di yóbbu marchandise dootoo dawati tey ji it war nañ jël ab dogal ngir daal di tere woto boo xam ne marchandise moo la andi ci réew mi ñu soppi la nag di la def woto buy transporter ay nit alxamis gii daañu jëlub décret boo xam ne dina tere bépp woto muy yokki porte bagage ak Versailles ñu war a publier boo xam ne it dina daal di wékki bépp porte bagage bu nekk ci woto dañuy jote agrément bu transport tey jii daanu ko wax waaye tam gouvernement gi mi ngi lijjanti at bi nga xam ni mooy transport en commun ñaar fukk ak ñettee ñu egg ca réew mi quotidien ne ma ña ngay jëli mesure de ba tey jii nii la quotidien la quotidien ne ma daañu appliqué juróom-ñaar ci ñoom réew mi ne ma waaye syndicat transport ñoo war a nekk barrage bi mënta ñàkk nag collusion faaw mu am seen digg gouvernement gi le mandat yéen kaay ne ma en tout cas bu gouvernement gi tëwee tëj ci ne recommandation yii da koy def syndicat bu transport bi moom ña nga jëm ci grève l'indépendant yéen kaay ne ma sëriñ Muniru Njëgeen ma ngay woote ñu gën a jël suñuy responsabilité ci tali bi moom xalif général bu xadra bu njëgeen di jaale ña nga xam ni ñoo daal di faatu di jaale askanug réewum Sénégal di ñaanal ña nga xam ni ñoo faatu waaye tam ña am gaañu gaañu ñu gaaw caa jóg di sàkku it lu ni mel daal di gëj ngir du amati ci réewum Sénégal waa grand place ne ma en tout cas waa gindi askan wi ñoom moom nee na na Mansour Faye able rek tribune yéen a kaay jox kàddu papa Ibrahima fay bu Fera muy xamle lan moo tax Mansour nag di able coow li coow li mooy Mansour dawalul la nga xam ni mooy jur accident yi yenn saa yi responsabilité dawalkat yi la demuk Mansour yëpp Mansour la l'indépendant yéeni kaay ne ma Abdoulaye Xuma ma ngay xam le ni dëgg-dëgg coow li du Mansour de te la am si kilo yi du Mansour ndax nag fii ci réewum Sénégal accident yi nga xam ni moo fii ëpp di am téeméer boo jël juróom ñett fukk ya facteur mais la maanaam ñun askan bi ci boppam daanaka ñooy sabab accident bi gindi askan bi ci waa grand place ne Mansoura moo jiite transport défaillance bu ci am moom lañ koy giiñ na mooy dëgg l'enquête quotidienne ne coow li coow li lu gi métti métti taxul nag gaay fàtte rapport cour des comptes bi gouvernement gu Sénégal day ma ngay rassurer ay partenaire am waaye askan wi ci boppam ñoo noppiwul coow li coow li nag moom ña ngay jéem a fay ndànk par ndànk bailleur yaa ngay félicité Cour des comptes war a wéeru ci premier ministre la témoin yéene kaay ne ma weñ waa nga banjee ca mbànj xaan nga ndax nag ci rapport bii naa leen ci wax loo xam ne du ngeen ko sax gëm rapport bi ci boppam ministère des finances moo insisté ci ñu publier ko moo tax nag gouvernement gu Sénégal bu bëggee xamal askan wi naan leen gouvernement gi dafa am mbetteel ci lii am mbetteel ci rapport bi li nga xam ne publier na ko du ministère de finances moo sàkku ñu daal di koy publier Sud Quotidien ma en tout cas président Macky Sall moom moom ca gël guyam nee na day présenté wu 2024 waaye taal réew mi leen jëm lum ca gis nag mooma tribune yéene kaay ma dab ali sàkku moom président Macky Sall mu geesu seen maire maire ba di Samb sàll amal lool njariñ askan wa amalaale ko président Macky Sall moom la askan wa di sàkku ñu jël décret ci moom Walf Quotidien ne ma geneen sàkku tee fa ngii de di dossier Fulbert Sambou ak Didier Badji nguurug Sénégal lan moo tax mu ànd ceeg Thiel seeni ñooñ ña ngay sàkku mu leer tribune yéene kaay ma gannaaw Semi Keba Nathalie Yamb ma ngay réagir ci kàddu Ousmane Sonko yi naan ko nañu bañee ku remplacer benn maître teg fa geneen la ñu bañee ku remplacer ab suqu teg fa beneen turbine ne kaay ma coowal suuf jeexagul ci réew mi te cité ca Salaam te Tiwaawan Pël ñeent fukk ak juróom ñaati njaboot boo moytul daañu leen génnee seeni kër moom nguurug Sénégal ma ngay sàkku ñu assainir secteur bu immobilier yi booba nag ay caxat-caxatee ma ngi cay am ñoo xam ne nag seen doole la ñu yor di tuñ tuñal askan wi ci maa ak ëpp leen doole président Macky Sall bu ci waxul ca daaru salaam ca tiwaawan pël ñeent fukk ak juróom-ñaar ci njaboot ci boppam daañu génn seeni kër fanaan ci mbedd bi te lii tribune yéene kaay ne ma bu ko nguuruk Sénégal mënee seetaan nekk cib caaxaan ak lu mën a am mbokk yi nañuy ñaan jàmm te yendoog jàmm